article bi xaar leen ma woon leen article ba partagé waat leen ko gars yi jot ko sama gars yi ci group yi ci groupe whatsapp yi groupe facebook yeeg groupe yépp sénégalais yi jot ko ma liiral leen article bi ñu ne la Sénégal <clears throat> c'est porté volontaire volontaire ça veut dire forcé wuñu sax Macky Sall forcé wuñu ko volontaire ça veut dire moom dafa dem volontaire yaa ne sénégalais yaa ngi nii def naa sénégalais ay cobaye déglu leen bu baax le Sénégal s'est porté volontaire pour faire partie des pays de test des nouveaux vaccins contre le coronavirus Vous savez ce que je vous ko doon wax ay fan fake news C'est ce que yëpp na bu le Sénégal s'est porté volontaire pour faire partie des pays de test des nouveaux vaccins contre le coronavirus c'est une révélation du docteur Madiba docteur Madiba Je ne sais may si vous ma incident manager et coordonnateur de riposte Covid-19 de l'OMS au Sénégal, hier sur TFM. de malgré des dénégations de quelques autorités, le représentant de l'OMS à Dakar a annoncé que le Sénégal a accepté de tester les vaccins qui seront proposés pour combattre le coronavirus. bon nous, volontairement ça veut dire que Macky Sall sax forcément Nous na ay cobayes. léegi ñu ñëw jël malade yi nekk ci hôpital yi commencé leen vacciner lu leer laa leen wax commencé na am na ci ñenn ñoo xamante ne ñu ngi ci hôpital yi dañ ñoo envoyé ay audio ne ñoom dañoo ragal ñu pikiir leen pour tester leen affaire boobu noonu te feebaruñu te feebaruñu mais dañoo insister jàpp leen prise d'otage la Macky Sall la nekk di def day jël ay doomu aadama yoo xam ne dara dalu leen mu forcer leen jàpp leen hôpital ba pare nar leen tester yéen ñii seen mbokk yi nekk hôpital lii ma leen di wax nii boo leen jógul dem récupérer seen mbokk yi dinañ dee parce que vaccin yi kenn xamul ndax baax na wala baaxul amul fenn kuñ ko nekk di tester ay nit ñoo xamante ni ils ne sont pas consentants sa veut dire nit boo buy tester vaccin da leen waa d'accord naa nekk nekk nekk koo xam ne day ñëw teste vaccin bi mais dafa am ay textes yu koy encadrer ça veut dire ko war a fay da nga ko war a dédommager lii bu amee lii bu amee mais Sénégal lu ñu nekk di def c'est extrêmement grave dañuy jàpp ay doomu aadama forcer leen vacciner leen duñ leen ko yëgal li amul fenn ci àdduna